acca asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax nekk niñ koy defee actualité bu amee tey jii nag li ñu yëkkati mooy manifestation bi nga xamante ni coalition bi daal dinañu koy woote door ko tey ci àllarba bi le 29 ba euh, le 29 le 30 ak le premier incha allahu rabi ci loolu nag la ñuy waxtaanee tàllal micro askan bi ñu wax ñu naka la ñu ko gisee ak ban jàngat la ci am waaye bu ñu jógee ci loolu nag waxte tamit ci wuyu ji bi nga xamante ni war na dox suba incha allah le 30 diggante ki nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko eh, ci seen projet naka la ko askan bi gisee naka la ñu mën a def ba fitna bañ a am ci réew mi eh, xali sama doom ji bu baaxee rek ñu dugg ci biir koñ yi ruq yeeg ruqaat yi eh, dellooti bu mu ca mboy mboy ba waxtaan ak askan bi ndax ni ñu koy waxee saa su nekk seen mbégte mooy suñu yitte ba tax li leen di yitteel rek la ñuy def sama caméraman bi bu baaxee rek ma dugg ci biir koñ yi gisee askan bi tàllal suñu micro ñu wax ñu naka la ñu ko gisee ak jàngat bi ñu ci am ak lan mooy solution bi aussi sëñ bi maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm. maa ngi jàmm baax alhamdulilah. tur bi Ndaw. ñuy waxtaanee manifestation bi nga xamante ne Ousmane Sonko daal dina koy woote euh, muy commencé tey ji euh, le 29 le 30 ak le premier naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. bon mm, avant tout d'abord ñu ngi lay remercier manifestation nag jàpp naa ne bon peut-être euh, lu war la ci am réew suñu constitution moo ñu ko may jàpp naa ne bu ñu demee ba gis loo xamante ni peut gis nañ ne jaaduwul yoon war nañoo mën a taxaw manifester ko kon jàpp naa ne man gisuma ci benn benn ngaañ gisuma ci benn danger à ce que à ñu def ko buñ ko tegee ci yoon rek incha allah rabbi waaw loolu moom kenn waxaaliwu ko sax parce que en général manifestation boo ko naree def da ngay def demande d' autorisation d' abord Euh, bu ñu la autorisé ñoom ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo lay kaar nga def sa manifestation pacifiquement jàpp naa loolu yoon noonu lay daal tëddee mais bu ñu la autorisé wul tamit nga def ko peut-être mën na indi ay complications surtout tension réew mi ak fu mu toll nii jàpp naa ne loolu war nañ war nañ di ci bàyyi xel. parce que le Sénégal sax appartient à nous tous kenn ku nekk ci ñun war na def loo xamante ni peut-être moo mooy tax réew mi réew mi réew mi réew mi jëm kanam daal kon jàpp naa bi peut-être ci ñaari wàll yëpp population Sénégal am na droit manifester wu kon jàpp naa ne bu ñu defee demande d' war nañ leen ko mën a may accompagner leen ñu def ko normalement mais ñoom tamit war nañ mën a bàyyi xel ne quels sont les paramètres qui pourront faire que ñu ñàkk leen bañ a autoriser loolu tamit war nañ ko jàngat bu baax a baax a baax ñu éviter ko parce que le Sénégal c' est le Sénégal de tout un chacun gis ne Ousmane Sonko suba la war a wuy ji digganteem ak ki nga xamante ni moo di Mame ñaa gis nañu yi nga xamante ni moo fi jot a jaar ñaari wuy ji yi mu dem yëpp euh, guute yi nga xamante ni maanaam wala xeex yi nga xamante ni jot na ci am lan nga xalaat ne suba loolu mooy solution bi ngir yooyu yëpp bañ ci fekk sénégalais yi. waa xam nga yoon ni muy doxee moom dañ ko woo mu war wuy ji man jàpp naa ne buñ ko woowee mu war a wuy ji euh, liñ mën a def moo ñu accompagner ko suñu ko accompagner pacifiquement dina wuy ji ñi déglu ko lu ci yoon war euh, war a def mu def ko ci mais buñ ko bëgg peut-être wax na ko fii ngay jaar wala fee ngay jaar te beneen camp bi bu jegee di dem kenn du xam fan lay jaar jàpp naa ne loolu tamit euh, euh, juste bi waru tëddee noonu daal woo nañ ko war na wuy ji nañ ko seetaan bu fekkee ne def na yoon bi laa bëgg jaar ñi accompagner ko mu jaar foofu noonu dina wuy ji pacifiquement bu boobaa fitna du ci mën a am daal jàpp naa ne voilà. bu message booy lancé jëmale ko ci askan bi ban message lay doon. bon man su ma amee message bu may lancé jébal ko ci askan wi mooy ñi xam ne d'abord le Sénégal c'est notre Sénégal e muy que ci ku kujje politique yi wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi kenn ku ci nekk war na sàmm li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi ñi bàyyi wante xel ñu respecté wante surtout ci kàddu yeeg ci tension yeek waxante yu ñaaw yeeg tout ça parce que loolu jàpp naa ne moo war a mën a defar réew parce que am réew bu koy tabax duñ ko tabax ci fitna mais dañ koy tabax plutôt dans dans dans dans le pacifique quand même ci jàmm ak salaam moo moo moo moo moo mën a laal am réew da incha allah kon maa ngi bàyyiloo xel ñëpp daal ñi ànd ak daal ànd ak tey te eh, jéem a def li nga xamante ni moo moo dëppoo yoon daal incha allah. merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf. Euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm bu naka la. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye tey ñiy waxtaanee manifestation bi nga xamante ne Ousmane Sonko daal dina koy woote mu koy commencé tey jii suba ak ginnaaw suba naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. Euh, pour man euh, manifestation bu Ousmane Sonko woote bu dee da ko woote si tolluwaay réew mi pour ñu xeex ak ak yelleef ñoo xam ne Sénégalais yëpp ko bokk c'est logique quoi. mais ñu def ko si si comme ni mu ko waxee de manière pacifique bañ a saccager bañ a yàq bañ a indi benn trouble benn troublement noonu laa ko gisee quoi. gis ne manifestation bi autorisé wuñu ko est-ce que jàppoo ne loolu lépp mënu ci ñàkk. c'est-à-dire moom wala ñàkk autorisé moom loolu mu ngi dépend si si préfet bi ak je pense que tamit buñ gisee buñ demee ba gis manifestation buñ ko autorisé mën a indi troublement buñ ko autorisé au moins mën naa indi troublement. là la je préfère que ñu ñu bàyyi lépp ñu ñu dem ba ba ñu autoriser ko ñu doo ko manifester puisque c'est le c'est le Sénégal quoi en fait ñu bañ a indi benn trouble oui oui waaw waaw bu dee dañ koy def mooy indi troublement kay ba ñu ñu ñu bàyyi ko rek ba mu indi ñu autorisé ko c'est mieux. ñu gis euh, suba la war a wuy ji projet ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ñaar ñi fi jot a jaar yëpp xamante ne jot na ci am xeex bu ñu ko defee suba loolu lépp mën na ci bañ a fekk xamante ni moo di askan wi. cest à problème Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang si ça oppose des Sénégalais lambda je pense euh, luy indi problème bi mën mën naa ñàkk c'est-à-dire d'un point Ousmane Sonko bu ko convoqué pour mu woyu ci tribunal nañ ko les ak choix am mu jaar fu ko neex ñu bañ a barricade këram ñu bañ ko Mame Mbaye buy dem day day jaar fu ko neex. mais pourquoi pas Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu jaar fu ko neex moom tamit mu dem tribunal si Sénégalais yi voilà ñu dem assister puisque autorisé nañ dem assister kii projet bi ñu dem assister bu jeexee après mu dem lu si lu si lu si yoon def ñu xam ne loolu la. message booy lancé jëmale ko ci askan wi ban message lay doon. c'est-à-dire que ñu rest vigilant ñu xam ne lépp Sénégal la quoi ñu bañ a saccager bañ a yàq bañ a indi benn troublement ñu delloo suñu xel quoi surtout ñun jeunes yi ñoo xam ne ñu ñooy avenir réew mi ëllëg. ñu ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax ni politique la rek bu jeexee day jeex waaw lu ne jaar na fi incha allah. merci beaucoup ok merci euh, bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ci jàmm sant yàlla bu baax bi naka la. Samba Dem. Samba Dem ñuy waxtaanee manifestation bi nga xamante ne Ousmane Sonko daal na koy woote dooree ko tey jii euh, suba ak ginnaaw suba naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. arrangé wul kenn waaw arrangé wul kenn ndax dëkk bi moom manifestation yi arrangé wul kenn waaw man moo ko gisee arrangé wul kenn war na ko teg waaw 2024 presque jot na ba pare waaw sëy na président africain moom man pour man bokk boo demee bu ko toog kii da ngay jot sa carte yaa ko moom quoi jarul ngay sànni xeer yàkkal ñi ñi quoi saa yu Sonko wootee affaire yi manifestation rek doo saa gis client waaw ñun de soo balee ñu ngi toog fi gisuñu benn client amul dara amul client amul oto amul sax waaw te loolu arrangement dëkk la pour man bokk man daal loolu arrangé wu ma daal sama côté bokk te man du ma sànnante ay xeer ñaanu ma ko saa waaye. ñàkk autorisé bi nga xamante ni ñàkk nañ ko autorisé manifestation bi est-ce que jàppoo ne mën na indi problème ci réew mi aussi. ah loolu loolu mooy lu ma la wax bi ba léegi rek parce que loolu noonu bu ko defee moom te fekkee santuñu ko moom ah boo defee lu la santul moom loo fa dal yaa ko def sa bopp ah waaw man loolu laa xam ne koy jàpp ah lu la fa la fa dal ma ah, yaa ko def sa bopp rek si gàttal voilà. wuy jéem ak ki nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang nekk suba incha allah le 30 gis nañ ñaar yi nga xamante ni jot na fi jaar xeex yi nga xamante ni am na si askan bi lan nga xalaat ne loolu mooy solution bi ngir xeex bañ a am suba incha allah. waaw loolu amul xeex loolu amul xeex c'est-à-dire que ñu muy àndal wala peuple bi ñoo ne fi di xeex loolu amul yow mam maa la diñ eh, yow yaa ma sàcc naa la yaa ma porté plainte ma wuy la ndànk rek ñu réglé ko jarul xeex waaw man man gisuma fa xeex. waaw moom moo ne eh, Mbaye Mbaye ñaa jol na xaalis ko porte na ko plainte na ko wuyu ndànk rek mu jënd ñu réglé foofu ñoom ñaar c' est trop facile. c' est trop facile Sénégal fii ñu xamuñu woon saa li ñuy def nii xamuñu ko 98 ba léegi la commencé dugal sama carte mémoire bi may lépp lu ma la commencé capté daal si gàttal mosuma gis luy am li muy am léegi quoi. ay xëy nga histoire yi ni chaque jours chaque 15 jours ay jours am na lu xew ku ñu bob bu ñu dagg dopp bu ñu dagg lee man daal. Sénégal léegi doon doon démocratie léegi. mu nga xoojo sax léegi dëkk ñag yi ah bien sûr man loolu laa ko gisee Sénégal fii avant man dama fi toog six mois wala wala un an wala deux ans billaay du ma xeexal du ma xuloo du ma saagante du ma defante kenn du gis sama magasin bu ñu daj doo nga gis gardien mais léegi sax bu ñu defee gardien parce que léegi gars dañoo dem ba ñemee ah, bien sûr saa su bu yàggee da ngay ñeme voilà loolu moo fi am waaw dama koy ñaar rek damay ñaar peuple bi maam peuple laa ñaan dama ñaar gouvernement. vraiment nañu bàyyi lu ñuy def quoi na suba na kenn ku dem topp liggéeyam quoi bàyyi la ñaar foofu jeex na waaw maa ngi nuyu sénégalais yëpp di la ñaan jàmm quoi. sa gis-gis léegi naka nga ko gisee. ah doy na waar de doy na nag mais loolu léegi moom boo xoolee si ñun la rek waaw parce que ñun la ñuy nax rek. waaw man boo ñëwee la ma voté la kii ñëw indi ma li ma voté man moom sama carte laa yor sama rukk laa dugg rek ma xam naa ku may jeex na c'est trop facile waaw man du ma xuloo du ma xeex du ma saagaan du ma sànni xeer déedéet. merci beaucoup. di ñëpp di gërëm ñëpp. waaw di yàlla Sénégal defal ñu jàmm rek yàlla defal ñu jàmm waa si barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass jaajëf waay. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. fay naa la bu baax. yaa bu baax. tur bi naka la. tur bàyyil ma leb ko ba ci kanam. élément Sonko rek. élément ñuy waxtaanee manifestation bi nga xamante ne nii kon Ousmane Sonko daal dina koy woote door ko tey ji le 29 le 30 ak le premier naka nga ko gisee ak ban jàngat ka ci am. waaw mooy ma rectifier la tuuti mani manifestation bi nekkul Ousmane Sonko coalition bi la coalition Yewwi Askan Wi ñoo ne maanaam dañuy manifester wu partout au Sénégal waaw te manifestation maanaam droit la parce que nit ki du yoon la bu amee loo xamante ni da ko métti maanaam mu génn parce que dafa nekk ci constitution bi mu génn naqarlu ko waaw loolu moom maanaam droit la te maanaam ñëpp ci am droit waaw. ñàkk ñu ko ñàkk a autorisé mooy ku mu am ndey ku mu amul rek jaay doole bi la rek parce que nit loo xamante ni droit am la moo ko may nga autorisé ko ak maanaam nga bañ ko autorisé yëpp maanaam droit am la da koy def suba la war a wuy ji procès bi nga xamante ni moom lay amal digganteem ak ki nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang gis ñaar yi fi jot a jaar yëpp euh, xeex yi nga xamante ni am na ci lan nga xalaat ne suba bu ngeen ko defee bu ñu ko defee fitna ban mën na bañ a yëngu ci réew mi. kanam mooy seen projet yu ñàkk fu la yooyu noonu ñu bàyyi ko teg ko fee parce que Mame Mbaye Niang sàcc la sàcc buy porté plainte fii la am Macky Sall laa nekk ci gannaawam ñun tiitu ñu ko ragaluñu ko li nga xamante ni daal ma moom mooy loolu mooy ñu ngi préparé suba dawuñ ci dara Sall yaay ndeer dawuñu ko ñu donc moom ba suba waaw incha allah ñu ngi koy préparé lu ñu am jël parce que sëf nañu waaw Sénégal rek la sàcc di porté plainte lekk suñu xaalis ba pare wala ba tegu ne daf ñuy porté plainte pour affaire diffamation ak yooyu yëngalul ñu sax waaw ñëpp génn ñu raak jaay doole jeex ku ma am ndey ga ak ku ma amul ndey gu jeex ronguñu ronguñu baadoolo di sim cere buur jeex ci dëkk bi comme ni ko français di defee waaw na Sénégal yëpp génn waaw parce que kenn ku nekk boo boo toogee si kër naan man bokk ma si wala laaluñu ma un jour viendra dina ñëw mooy ñu dal sa kaw na ñëpp génn ñu raak ko une bonne fois pour tous mu jeex tak waaw ñëpp yem si dëkk bi waaw. merci beaucoup. waaw merci Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. tur bi naka la. Mouhamed Diouf. Mouhamed ñuy waxtaanee manifestation bi nga xamante ni coalition bi daal dinañ koy woote dooree ko tey jii euh, le 29 le 30 ak le premier naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. waaw réew mi moom wax dëgg yàlla pays démocratie la quoi parce que constitution bi moom. may na ku bu amul lu la naqari nga nga marche mais nag à condition que préfet jox la ordre bu bu préfet xoolee ne xam na ne conditions yi sont réunies pour nga def sa manifestation war nga ko mën a def mais tamit préfet bu xoolee xam ne conditions yi ne sont pas réunies waroo def manifestation bi parce que fi mu nekk nii tamit aussi réew mi dañu toll foo xam ne dafa métti réew mi nit ñi dañoo woor ku nekk yaa ngi tal loo yóbbu sa kër ngoon. parce que manifestation bu amee fii nit ñi duñu liggéey ñiy tëj fii problème bi noonu lacrymogène yi ñun nga xam ne suñu yoon nekku ci yàqal suñu liggéey te mu ngi nii ñu war a yóbbu dépense kër ga wax dëgg yàlla bu ñu mënoon bàyyi lépp mu sedd ba koor gi passé dina baax si ñun quoi parce que ñun commerçant vraiment sonn nañ ci affaire manifestation yi bu ñu sañoon daal gars yi teg affaire yëpp ci suuf trouver beneen solution toog waxtaan opposition bi ak pouvoir bi ñu toog waxtaan parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul bu baaxee ñun ñëpp la baaxal politiciens yi moom fii la ñu fekk askan wi te ñoom dañuy dem bàyyi fi askan wi kon boog wax dëgg yàlla bu ñu sañoon mu rafet bàyyi population yi nekk ci jàmm quoi dund seen dund bu rafet jéem a seet lu ñu dépensé yóbbu seen kër ñun daal loolu la ñu la ñuy jéem a lijjanti quoi vraiment. d'accord ñàkk bi nga ko ñàkk autorisé jàppoo ne mën na indi problème wala guuta ci non autorisation moom peut-être euh, ça dépend rek xam nga euh, xam nga autorisation tamit aussi gis nañ ne marché bi tamit bu ñu ko autorisé gars yi def ñu ah, police ma encadré leen bu ñu xoolee tous les conditions sont réunies pour ñu mën a marche bu ñu leen mën a encadré ñu def seen marche tranquillement dem ñëw waaw mais aussi moo gën ñu nekk fii di di xeex ak di sànni ay lacrymogène nag sonal nit ñi indi nit ñi ay coono ak problème nit ñi du ñu liggéey tëj seen cantine moom wax dëgg yàlla moom loolu moom bu naree am moom. ñu bàyyi lépp a teg ko ci suuf quoi moo gën waaw. ñu gis ne suba la war a wuy ji son Sonko digganteem ak ki nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang gis nañu ñaari wuy ji fi nga xamante ne jot na fi jaar problème yi nga xamante ne jot na fi am lan nga xalaat ne loolu mooy solution bi ngir bi nga xamante ne war nañ ko amal suba la 30 incha allah solution oh, maanaam euh, réew mi bañ a kii daal xeex bañ ci am xuloo bañ ci am. ah mais affaire yi moom wax dëgg yàlla lépp lañ ko a teg ci suuf parce que koor la ñu ne lépp lañ ko waroon teg ci ba koor gi passé. parce que nit ñi fi mu nekk nii dañu toll fitna coono gi ñu nekk rek doy na sëkk fitna bu ñu ci naree yokk leneen nag moom wax dëgg yàlla xamatuma ci dara quoi bu ma sañoon daal ma ñaan le président Macky Sall daal ñaan ko ngir yàlla war a sori mu teg lépp ci suuf parce que ñu ngi nekk weeru koor weeru yërmande la weeru jéggalu mu ñu yërëmante yërëm askan wi yërëm doomu aadama yi ñu teg lépp ci suuf réew mi nekkaat si jàmm ba ñu ba yeneen jamono fekk lépp dal ñu seet nuñ ko waxtaanee ba yàlla def jàmm moo gën coow coowleeg wax ji loolu moom vraiment les sénégalais sonn nañ ci quoi sonn nañ ci coowleeg wax ji vraiment bu ñu sañoon daal ñu bàyyi lépp teg ko ci suuf quoi ñu ñu ñu jàll ci leneen quoi oui. d'accord merci beaucoup. de rien. maa leen di fay maa ngi si jàmm bu baax jàngat bi ma ci am premier jàngat bi ma ci am mooy euh, trop de manifestation. tue la manifestation chaque jour que jëfee nit ñi war a liggéey ngeen nekk di woote ay manifestation bu yàggee manifestation day day soof man nangu naa nga am lu la naxari nga manifesté wu benn fan ñaari fan toogaat ba mu yàgg nga manifesté waat mais imaginel mois bi yëpp nga nar ko manifester chaque jour nga manifester chaque jour nga ne da ngay manifester buñ la aay buñ la aay nga manifesté wu rien contre ñoom wala contre opposition état bi tam na maa ngi koy ñaan yenn saay muy maye. muy bàyyi tuuti gars yi manifeste mais tamit nag chaque jour nga bëgg a bàyyi nit ñu nekk si tali bi yàqal nit liggéey loolu loolu du fi am man nanguwuma ko wax dëgg yàlla manifestation yu bëri yi nañ ko wàññi nit ñi dañuy liggéey. d'accord hmm. waaw li may wax rek mooy par exemple tey jii nii tey le 29 nga ne da ngay manifester le 30 nga ne da ngay manifester le le premier wala le trois lañ wax le premier nga ne da ngay manifester yow sax xanaa waroon nañoo sax sóoraale keneen ci mois d' avril bañ nar a dugg le premier avril. ñu bàyyi nit ñi ñu dund suñu fête de l' bu fekkee sax ñoom gëm nañu ñun amuñu indépendance ñun am na ñun ñoo xam ne ñun gëm nañ ne Sénégal am na indépendance ñu bàyyi ñu ñu faire suñu indépendance. lépp le 29 bii nag tey su ma doon bi dama leen bàyyi ñu dox li ñuy ñu dox li dox. le ñu dox li ñuy dox mais nag état bi ñoo xam leen parce que autorisation tam nekkul ne da ñëw rek chaque jour ñu autoriser la mais nag le premier bu ñu nar a manifester bëgg a yàq dëkk bi nga xam ne yow fi nekk lépp luñ ñu yàq na loo xamante ne nii bi def na ko ngi liggéey xoolal àll du centre nañu rafetee defar ba mu bëgg a dee nga bëgg a ñëw le premier nga bëgg fa marché yàqate lañ fa liggéey yëpp ah xoolal tey ñun suñu avenue Blaise Diagne bii nii feu yi fi nekkoon toj nañ ko léegi bu nekkee nii 19 heures dañu nit ñi bëgg nit ñi bëgg a que nañ bàyyi yàq xale yi nañ bàyyi kas man mun nangu naa nga def sa pacifique pacifiquement wax li nga bëgg a wax mais yàq pour lan képp koo gis mu yàq du patriote man j'ai le Sénégal j'ai le Sénégal qui coule dans mes man Sénégal laa gëm képp kuy yàq man duma ànd ak yow képp kuy cautionné yàq man su ma naroon ànd ak yow tam bàyyi naa la nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ bëgg suñu réew fonk suñu réew toppatoo suñu réew bëgg suñu doomu réew mais appel à l'insurrection koy def man ànduma ak yow ak Ousmane Sonko démb rek wax na ko man saraan man man maa ngi koy suivre ci ay déclaration nee na moom moo ko doon laaj pour dem léegi nañ ko bàyyi mu dem nànk fu mu bëgg a jaar ñu bàyyi ko mu jaar fa dem wuyu ñu wax lu ñuy wax ku nekk dem match bi tas na wuyu ji yow yaa ne diw gis naa ko gis naa nangam am naa ay PV am naa lépp mu samay loxo lépp a ngi nii ñu ne la kaay wane mais dama la wane dama la wane match bi tas ku nekk dem nit ñi liggéey waaw ah. li ma koy lancé mooy na yaram askanam Eh, nguur gi na yërëm askanam na xale yi respecté mag ñi mag ñi wekk gune yi xale yi tam bàyyi yàq yàq baaxul képp ku bugg sa avenir réew doo ko yàq tey boo seetloo dëkk yi avancé yëpp discipline moo leen avancé loo indiscipline baaxul yàq toj lakk taal alalu jàmbur pour lan ne nit ñi liggéey te bàyyi caaxaan salaamaaleykum wa